mbokk yi comme niñ leen ko waxee ñu ngi nii grand théâtre vraiment champion bi dugg si na muy Siteu ci fondation boobu nga xamante ni moom la tuddee tarkinda sociale mu nekk loo xamante ne àdduna bi ñu bëree bare bëri ñu ngi koy rafet rafetlu tey ñi doon wax naan mbër du àndandoo mbër du xarit mbër bu amee day beru Siteu wane na ni dëgg-dëgg mbër nan la war a mel Siteu ñu ngi lay féliciter bu baax di ànd ak yow ci li nga xamante ni tàmbali nga ko di ñaan lépp loo ci bëgg yàlla suñu borom defal la ci lu kawee sa njort lan ngay wax sénégalais ak lan ngay wax ñi nga xamante ne da nga leen woo ngir ñu jàppale ci lii. waaw di wax ne jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul comme ni ñu koy waxee chaque jour. Mm-hmm. waaw di leen nuyu di leen sant di nuyu jàmm gën di nuyu ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo nekk fii ak ñun. muy journaliste yëpp maa leen di bëggee waaw di leen wax ne maa ngi soog a ñëw nii waaw dajeeg yéen si buntu bi nii waaw mënul ñàkk mais idée bi mhm. fan la fan la jógee idée la xalaat wala dañ ko ko xalaatal waaw idée bi nag yàgg na ak man idée boo xamante ne rêve la woon ci man waaw peut-être rêve day soog day feeñ rek mhm. waaw ndànk-ndànk mhm. waaw te jàmbaar jàmbaar amul ku yàlla jàppale moo fi nekk waaw kon dañuy jiim rek lii dafa nekk loo xamante ne door ko làmb la. Mm. ah di wone ne ñun tamit ak lu ñu mën a doon bu ñu nekkee bu ñu nekkee sportif. Mm. lu ñu mën a doon si àdduna du tee tamit ay nit lañ quoi. Mm. waaw loolu moo war a geste rek. waaw wareef la. wareef la wareef. waaw. geste bi da ci woo mbër yëpp wala pour jàmm gan la wala képp koo xamante ni mbër la surtout mu ngi koy tàllal loxo pour mu jàpp. waaw lii mbër yi ñu ko moom. parce que tey mbër bu toogee ñu ne mbër mooy def lii. kon mbër yëpp war nañu am fierté mbëri ñoo ko moom. ok nit ñi aussi ñoo ko moom. parce que nit tamit su fekkee ne yàlla da la def nga doon ki nga war a doon te mënoo jariñ kenn non loolu bañ doon kenn nag moo ko gën. waaw yàlla jariñ kenn donte benn nit la ma jariñ ñu gis ñu gis fondation bi nga tuddee ko fondation Tarkinda ñu bëggoon a xam lan mooy objectif bi. Hmm. bi mooy moo jàmbaar. Tarkinda jàmbaar la mooy koo xam ne du bàyyi. te ku dul bàyyi boo nekkee maçon wala nga nekk leneen wala nga nekk étudiant ak ci loo mën a nekk day tollu moment boo xamante ne boo gëmul sa boobu dëgg da ngay bàyyi. waaw léegi mu tarkindaa boobu mooy ki nga xamante ne du baay ci moment boobu la gën a am gëm-gëm ci boppam xam ne yàlla jeexul. waaw ñun ay borom karaw yu ñuul lañ yàlla suñu borom lu ñu dencal moo dàq fuuf moo ëpp fuuf. waaw te ñun yàlla daal lu ñu def amuñu beneen fay bu ñu ko war a mën a fay lu dul delluwaat si jaamam waaw. ñu gis euh, fondation bi nga fas yéene def tey lancement bi ñu bëggoon a xam na est-ce que am nga partenaire yu la ci jàppale wala yow kese yaay dem ak say moyen bopp. waaw juste nag man maa démarré ak samay moyen bopp aw ma benn partenaire boo xamante ne moom la si jàppale man samay moyen bopp laay laay mais ñaan nañ yàlla suñu borom képp koo xamante ne tey yaa ngi ñuy gis. suñu ambition bi ñu am ci banlieue bi mais nga ñëw jàppale ñu ñoo ngi lay woo comme partenaire. comme mën a doon nag. Mm. waaw ñun bàyyiwuñ kenn. waaw. Mm. kon daal yaa ngi tàllal loxo partenaire waaw maa ngi tàllal loxo partenaire yëpp. bu baax maa ngi tàllal loxo tamit état ñu jàppale banlieue bi. Mm. jàppale fondation bi parce que fondation bi ku ko jàppale sa bopp nga jàppale parce que ñun li ñu def yëpp dañ koy def mais nekkul loo xamante ne day retourner ñëwaat si ñun. lu baax boo koy def lu baax la tudd kon képp koo xamee lu baax moo la tax a jóg te nekkul gisal nekkul dara ñu lay woo nga bàyyi sa lépp nga ñëw. mel ni Siteu bu waxee rek la banlieue bi lan moo tax. waaw banlieue bi laa man man banlieue bi man lañ am. aussi tamit man banlieue bi laa am. waaw yàlla nag xëy na daf ma wàcce foofu. waaw pour ma nekk produit banlieue. waaw fier naa ci trop waaw. ñu gis na fondation bi gis nañ ñu jóge ci yeneen dëkk ñëw ci. tey man gis naa ñu jóge Baba Garage ñëw ci ak yeneen dëkk. waaw mooy li ma lay wax rek famille yi ñu ngi fépp ñun ñëpp ñoo bokk. waaw te fondation yi dafa ñaan yàlla dem ci village yi. parce que yow gis nga non non non non day dem rek parce que village yi soo demee am nay village yoo xam ne dafa am ay ay yoo xamante ne tey ay xale yoo xam ne dañuy judd du ñu am yaay du ñoom am papa. Mm-hmm. imagine jeune boobu nga mat papa dem waxtaan ak moom day mel ni gis nga waajuram. waaw ñu rêve boobu la ñuy ut. Mm-hmm. nekkul loo xamante ne fii la ñuy yem. sar sarale lu tudd. ñee mm-hmm. di si ñëpp. képp koo xamante ne daal li mun na la attiré pour nga ñëw nga ñëw ñun jàmm la ñuy wootee ñun si jàmm la ñu juddu si jàmm la ñuy dox si jàmm la ñuy jéem parce que il est temps suñu jeunes yi ñu ngi yàqu yaa ngi dégg il est temps suñu papa yi mais amoon bu ñu amoon si ñun ak liñ doon xaar si ñun ñu bari repère bi amatul parce que tey soo xoolee tey mag ngi njëkkee dañ la naan yar démb moo gën a baax tey ok kon tey repère repère mu ngi perte ñoo ngi perte repère bu baax. Mm-hmm. kon tey bu ñu nekkee ay jeunes bëgg a teral suñu waajur yi. Mm-hmm. te nga gis sa yaay di di di dund nga koy gis nga koy gis mu lay gis. te mu leer na yow sa yaay ji dina dund ba génn àdduna te doo ko teral. Mm-hmm. loolu lan moo ko gën a métti. waaw léegi nag il est temps ñun ñu am. exploiter xel yi ñu am exploiter suuf yi ñu am. yaa ngi dégg. yaa jàppale suñu bopp. su boobaa rêve bi da nga ciy dëgg sa tànk parce que boo xëyee di liggéey huit heures de temps mais. heure bu ne ñu fay la dix mille franc xanaa loolu balaa nga wàcc ngoon nga am quatre vingt mille wala nga am soixante mille. Mhm. ok loolu boo ko defee semaine de su fekkee ne rek pour jàppale sa yaay mën ngaa jënd ceeb. mën mhm. ngaa joxe dépense. soxla yi ndaw ndawaan mën nga ko fay. Mhm. loolu boo ci dëggee ñaari at ñetti bu yàggee sa nga taxaw kon foofu lañ toll. nañ ñu jàppale. yan action a eh, nga xamante ne ñoo ah, mais directeur. kaay fii nga war a jaar. da nga war a jaar. Mm-hmm. ok. Uh, par rapport ak mbënd mi ci banlieue bi ak uh, période tabaski bi ñu dëgmal xam na ne tabaski dafa laaj dafa laaj li nga xamante ne bii moom mooy social te gis nañ ne côté banlieue bi ñu ci bari seen loxo jot seen gannaaw ban taxawaay nga ci nar a ñu ñoo ngi may man. te aussi tamit war nañ def benn point de presse mais comme juste rek respecter journaliste yi moo tax muy dugg si ngeen téema mais loolu léegi après dañuy jël la tënk ko boole ko ñu defar ko ba mu gën a rafet ci biir biir la nañ dem ci biir après la yow Siteu Siteu dafa